bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil anbiyaai wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi bàyyi xel ci Sud FM seen rajo asalaamualeykum wa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 di ko ñaan mu defal ñu suturas àdduna defal ñu suturas àllaaxira mbokk yi bàyyi xel almisbaax asalaamaaleykum wa rahmatullah nuyuwaat nañ ñëpp siyaare leen beral ab nuyoo jàngkati alquraan yi ak jàngalekati alquraan yi waaye nuyuwaat bu baax a baax ilimaan yi nuyuwaale bu baax a baax kilifa yi nga xam ne dañuy bàyyi xel suñu jotaay bii di almisbaax moo xam ñi ñuy bàyyi xel te ci biir réew mi la moo xam ñi ñuy bàyyi xel te nekk bitim réew ñoo ngi leen di siyaare bu baax di ñaan borom bi mu nangul leen te nangul ñu bég nañ lool ci topp gi bég nañ lool ci ñaan yi bëgg nañ lool ci jàppale gi bëgg nañ lool ci wétali gi ñoo ngi doon waxtaane lu jëm ci téereb borom bi subhanahu wa taala di alquran dooroon ko ginnaaw biñ noppee ci julli ak yi nga xam ne moo ci aju ndax ni alxuraan nekkee dundum nit waaye doon téere bi nga xam ne moom la yàlla jox ku baax ka sallallahu alayhi wa sallam ngir mu ñëw defaral ñu sunu dundu te waxoon naa la ne gi ñu dund nii defaral ñu suñu dundu ci nett li la jiitu woon bañ xam ña góorgóorlu woon fañ mujje ak ña sàgganoon fañ mujje nett li ñu suñu dund ci ëllëg <clears throat> li nga xam ne moo nekk suñ kanam nan lañ ci war a góorgóorloo ba buñ cay àgg àggaale ci ay ngërëm moom téere boobu nga xam ne mooy alquranul karim dafa am diggante bu mu am ak doomu aadama boo xam ne defe naa buñ doon def fajar gu jot ñu waxtaan ci téere bi du doy ndax ni mu toll moo tax bokk na ci jagle yi ma doon wax te jeexale woon ko keroog mooy su fekkoonte ne moom képp la am ci ag jagle mu doy te mooy bu ñu suulee nit ki ba woon ko ginnaaw mooy téere bi nga xam ne moom la malaayika yi di ñëw di ko laaj nan ko si digganteeg moom nan la demee woon mu am nag ay wàccuwaay yu bari yum am yoo xam ne dafa jot jullit yi nga xam ne ñoo ko moom gën koo xam naka jekk xamoon nañ wàccuwaay bi mu rëyoon lool waaye day dem ba mu yàgg jamono mën naa fàbbi ndax jamono moo bindoo noonu ak liggéeyu seytaane ba tax léeg-léeg ñu dellu siwaat ci téere bi ak di ko xereñewaat day am solo lool maa ngi siyaare bu baax a baax tey ñaanal suñu wayjur wu tudd soxna mu Munina Kunta ndeysaan léeg-léeg ma fàttaliku ko ci jotaay yu mel nii ndax mag la woon waaye buñ ci masaana waxtaan ci alquran wala yonent bi boo xëyee suba rek mu jël téléphone bi ndeysaan jox sët yi ñu wooteel ko mu jabbutu ba sonn jëlu tuut sa ne ca nafaam daal di la koy yónnee dafa génn àdduna ci jamono yee yàlla na ko yàlla yërëm ñoo ngi koy jaalewaat njabootam yëpp di leen jéggalu bu baax ci fàttali gi ñu leen di fàttali eh, soxna si te léeg mu xaw a diisaat ci yéen waaye fàttalik jàmm dong la yal na barkeb alxuraan wàcc ci moom ak mboolem ñi nga xam ne ñoo jiitu ji woon te daan safoo jotaay bi ndax loolu daa bokk ci njariñal njariñul alxuraan alxuraan moom képp ku ko teg loxo booy dund mu lay teral boo wanee ginnaaw jiitu ji itam ñi koy jàng alxuraan di la fekk fa nga tëdd ñi koy waxtaane alxuraan di la fekk fa nga tëdd moo tax kuy wut ab xarit wala ngay wut àndandoo wutal alxuraanul karim waaw wutal alxuraanul karim man damay wax ne su may koo xam ne dama naan kii moom laa wóolu ci sama ginnaaw moom laa wóolu ci sama kanam ci samay mbir la ngay tànn na ca diine jiitu ndax diine ja bu jiitoo tey dëgg mooy yóbbaale jikko ya yóbbaale yépp te mooy doon koo xam ne du la wor ci ànd bi fii du la wor boo ko wanee ginnaaw ndax yi nga xam ne moo ci aju yépp moo tax ñoo ngi dénk suñu bopp jàngkati alxuraan yépp di leen wax ne yéenay suñu xarit ak ñi nga xam ne ñoo bëgg alxuraanul karim téere boobu dama la doon waxtaanal ci ngëneel yi nga xam ne moom la am indi loon naa la ci yu bari ba ak fi woon ci war laa wax teggiini ki nga xam ne da koy jàng teggiini ki nga xam ne da koy jàng yan teggiin la war a am ak teggiini ki nga xam ne da koy déglu ci boppam ndax dafa soxla nit ki di settantal di setantal bu baax téere bi nga xam ne mooy alquranul karim te bu fekkee njàng mi àndut ak yi ci war yëpp ngir mu def ci moom li mu war a def ci moom day jafe donte nag da ko ciy def sax te du ko yëg waaye bu ko doon setantal ci la yëg-yëg yi di ëppee ndax borom bi daa bëgg ñuy setantal daa bëgg ñuy xool bu baax a baax a baax nee na bari na sax yoo xam ne ci seen jimmi bopp laa ko def te alxuraan la koy won nee na boo ko doon setantal rek dinga xam bu baax man maay kan wa fii anfusikum afala tubsirun wa fii anfusikum afala tubsirun loolu di ay maraaxil yoo xam ne nit ki fa jaar ci bind gi ko boroom bi subhaanahu wa taala bind ak xikma bi nga xam ne moom la ko binde te ba muy nekk ban ba muy nekk toq manniyu bàlleen ma ba muy nekk lumbu deret ba deret ba di am yax ba muy doon lumbu lumbu ndawal allahu akbar ba keroog muy juddu bi muy nekk xale ba keroog muy nekk mag wa fii anfusikum afala tubsirun loolu bu ko jaam bi di xool ak di ko seetantal da koy yóbbu lool ci digganteem ak boromam subhaanahu wa taala foo xam ne wàccuwaay bu yéemee yéeme lay doon alquranul karim téere la boo xam ne dañ koy jàng ndax baat bi sax loolu lay tekki alquran mën ngaa wax xaraa ba na ngay toje baat ba ci yu baree bari waaye lépp am njàng rek lay tekki li ko wutalee yeneen téere yi nag yeneen livre yi ci njàng mooy alquran boo koy jàng jàng gi dafa am ak jaamu yàlla gu ci nekk ba noppi boo koy jàng dañ lay fay moo xam xam nga li muy tekki moo xam li muy tekki moom jàng ko rek yokkute la jàng ko rek ki koy def ña ngi koy fay moom alxuraan nga xam ne dañuy bëgg ki nga xam ne dafa bëgg a jàng alquran ci teggin yi ba ca njëkk mooy mu fexe génnee xolam kemt laayal kàttanam ci mbiri àdduna léeg-léeg nga jël ci sa dund gi 30 minutes yoo xam ne alxuraan moo ko moom 30 minutes rek baax na bul ma ko xeebal yoo xam ne danga naan may naa ko téere bi ci bis bi 24 heures yi dinaa ci am 30 minutes yoo xam ne damay ubbi kaamil tiim ko waaye nag mu génnee ci xelam ci bakkanam soxlay àdduna yi kemtu laayal kàttanam waaw lu mu ci man mu génnee ko mooy na fay télé bi na fay ordinateur bi na jël téléphone bi def ko silenceur mu sori ko na xaw a beru tuuti sëgg nag ci téere bi fanweeri minute yoo xam ne digganteem ak alxuraan bu ko defee rek mu daal di tàmbulee gis alxuraanul karim jeexital yi nga xam ne moom lay def ci moom jeexital yi nga xam ne moom lay def ci moom moo tax na jël ay minute dama misaal trente mën na koo ëpp mën na koo gën a tuuti waaye kii waa ji jàng alxuraan daal li war ci moom mooy mu mu féexal bakkanam dindi ci am xelam soxlay àdduna yi kemtalaayal kàttanam waaye mu teewal ab xolam ak xelam don koo xam ne ku torox toroxlu lay doon doon koo xam ne ku ragal borom bi subhaanahu wa taala lay doon doon koo xam ne ku wàccee boppam lay doon maanaam dara ci ak du feeñ ci moom dara ci ak rëy du feeñ ci moom waaye li muy màggal mooy téere bi mu teg ci kanamam di ko jàng te mooy alquranul karim noonu la ñuy noonu la ñuy jàng alquran loolu mooy teggin yi nga xam ne moo ci njëkk muy settantal aaya yi kemtalaayal kàttanam aaya bi mu jàng mu settantal ko ndax settantal mooy ruuxu njàng mi waaw mooy tax njàng mi am solo léeg mu jàng mu jàng loo xam ne xamoo sax lu muy tekki waaye am na loo yëg ndax baat yi ni mu bindoo moom léeg-léeg nga ne baat yi nuroo na de la nga ne wax ji moom neex na de ndax lépp a neex waaye seetantal gi mooy loolu am lu mu def ci yow am lu mu def ci yow léeg nga xëy jël sa téléphone wala ci saa si nga jël sa téléphone woo sa sëriñ daara laaj ko ne ko alquran moom suratu rahman daf maa neex man daal bu ma koy jàng day am lu may yëg moom itam mu gën la cee xirtal ne la suratu rahman nangam suratu yaasin nangam suratul ixlaas nangam ayatul kursi yu nangam waa ji nga xam ne day gën a bëgg alquranul karim bu boobaa waaw da koy gën a bëgg alquran dañ koy settantal waxoon naa la ko démb kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaru ayaatihi wa liyatadakkaru ulul albaab yàlla loolu la wax kiim mu yónni woon ci ñun ni ko téere bi dama ko wàccee ci yow allahu akbar moo tax keroog ba mu ci moom yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yëg na ne am na gan waaye mu ne ko muy téere boo xam ne dañ koo barkeel muy lu barkeel moom alquran ku ko laal rek mu defal la barke bu dul fay ba àdduna tukki waaw ku weddi xoolal réew mi moom neex naa wonee barkeb alquranul karim waaye nag ñuy war di settantal nag aayat yi foofu la mbir mi nekkee alquranul karim buñ ko doon settantal dëgg-dëgg bu Covid 19 amee coronavirus duñ sonn sax ci di xoole yu baree bari ñun jullit yi dañuy daal di am suñu solution ci alquranul karim ndax borom bi wax na lépp maa naa fil kitaabi min shay kon eh, yu ndaw ndawaan yi jaaxalu ko alquranul karim buñ ko doon seetantal li mu wax ci wàllu économie dañuy gis ne mooy koom-koom dañuy gis ne réglé na ko bu yàgg démb tey door a ñëw alquranul karim buñ ko doon seetantal ci wàllu paj muy wàllu médecine dañuy gis ne lam ci wax ma ngay tege bu yàgg waaye loolu yëpp nag dafa am rideau bu dox diggante jullit yi ak moom ba mu nekk téere barkeelu nekk téere boo xamante ne jàng ko rek la ngir julli wala wàcceel ko nit ku faatu rek la wala benn téere la boo xam ne téere histoire la boo xamante ne ay histoire yu passé lay nettali wala boo xam ne waaraate rek lay def nit ñi jooy mu jeex yooyu dafa muur yeneen yi nekk ci biir yi ma wax nii yëpp nag mi ngi ci téere la boo xam ne des koy jàng ngir faju des koy jàng ngir ñaanal kuy dund ak ku faatu des koy jàng ngir waaru di ci jooy waaye dañ koy jàng ci mbirum àdduna yi nga xam ne moo ci nekk settantal ko mu indil ñu yi nga xam ne moo ci nekk yàlla moo tax mu ne ulul albaab waaw téere bi day waaraate dafa ñëw ngir ñu settantal ko dafay amal njariñ kan la amal njariñ ñi nga xam ne ñoo am xel waaw ñi nga xam ne ñoo am xel moo tax alquranul karim téere boobu ay mbiram mat na xoolaat ñaareel bi ci ki nga xam ne da koy jàng yi mu war a euh, amanteel ci aw melo mooy bëgg nañ bu rombee aaye juy wax ci yërmande aaye juy wax ci yërmande mu ñaan boroomam yërmande waaw alxuraan ji day wax ak yow jàppal boo dee boo koy jàng dangay wax ak da ngay wax ak moom yaa ngi wax ak moom boo rombee aaye joo xam ne day wax yërmande nga ñaan borom bi mu defal la yërmande mhm. boo àggee ci aaya joo xam ne day wax euh, mbugal day wax mbugal nga ñaan borom bi subxanahu wa taala mu musal la ci mbugal mi ndax yooyu da cee nekk yoo xamante ne day nett li ñu mu yërëmoon waaw ñu defaloon i xéewal boo ci agsee nga ne yàlla yàlla nañ ca bokk ñaan ko boo àggee ci fu muy xuppaatee di wax wax yu metti yooyu nga ñaan suñ borom subxanahu wa taala mu musal la ci maa ngi ci teggi ni kiy jàng alquran yi nga xam ne moom la war a àndal ndax yooyu day tax njàng mi gën a def ay jeexital ci moom. loolu nag day tegtale ne kon settantal gi faaw mu am ndax settantal gi am mooy tax bu àggee ci aaya buy wax yërmande mu xam ko bu agsee ci aaya buy nettali ay duma mu xam ko lum ci agsi mu xam ko ndax settantal gi mu koy setantal ba noppi itam jéem a xam tuuti lu alxuraan di wax lan moo tax nga jàpp ne waroo xam li alxuraan di wax waroo koo xam te moo ne li ngay doxal ci àdduna lépp xam nga ko kon yàlla moom am na walay ci yow boo demee bu ñu la envoyé message ci anglais da ko liir boo ko jotee ci francais da nga ko lire am na ñoo xam sax ñu ko jotee ci chinois liir ko wala ñu liir lu ko xam li ci nekk bala ñoo tëdd ndax message bi daa ñëw ci seen téléphone ñu jàpp ne daf leen a concerné direct kon kii lu muy wax xoolal ma fii kii lu mu wax waa alquran nag doo wax ne xoolal ma kii lu wax wala nga jàng ba mën a xam li muy wax teraanga ji gën a rëy ci kaw suuf suñ borom di ko defal nit dara gënu cee féete kaw teraangay bu yàlla nee dama ne nga xam lu yàlla wax allahu teraangay bu yàlla nee teraangay dégg waxi yàlla borom bi subxanahu wa taala wax ji mu wax nit dégg ko xam ko teraanga weesuwut loolu ndax aji wax ja moo toll noonu waxam ji itam toll noonu ci ab dayo toll noonu ci barke waay waay mbokk yi nañ jaajuwaat man ak yéen ñu gën a téyewaat ci téere bi nga xamante ne mooy alquranul karim loolu suñ bopp rek lañ koy defal waaw suñ bopp rek lañ koy defal du téereb tumuranke de bul yaakaar ne pour nga jàng alxuraan faaw nga tumuranke déedéet man nga koo jàng ni ngay jànge xam-xam yi nga am yépp waaw ni nga naan damay liggéey ba ngoon dem ci université sàngam ndax yokk samay diplôme ndax jàpp ne bu diplôme yi yokkoo da ngay gën a am expérience ci liggéey bi am na ay affaire yu bees yoo xamante ne dafa génn ci biir li may liggéey faaw ma dem defiwaat formation bi ñoom docteur Anna Dieng ci wàllu médecine wala e, ña nga xam ne ay comptable lañ léeg-léeg ma demaat jàngi nangam parce que dafa am logiciel bu bees dafa am nangam te moo ne da ngay sacrifié wu wallahi da ngay xëy bureau ba wàcc léeg-léeg continuer sa oto wala nga continuer sa ta ak sa taxi demaat nekkaat élève toogaat di jàng alquranul karim am na ñoo xamante ne tey boo leen jàngal ma rek ñu kontaan moom baatu jàngal ma alquran pare naa pour jàng rek doy na leen sëkk ak fay waaw doo def effort tuuti nga jéem a jàng alxuraan te bañ a wax ne man kay ginnaaw mën na maa liir rek baax na waaye jàppal ne war ngaa mën a dem ba boo tiimee li borom bi subxanahu wa taala di wax nga xam wax ji ndax ndax ndax yàlla nga mën cee jël sa wàll waaw ndax yàlla nga mën cee jël sa wàll cee ñu nag téere bi ak politique bi dox suñu digganteem ak moom ba nit di jàpp ne jàng ko daa weesu ci moom ragal gi ñu la ko ragalloo ba jàpp ne doo ko man nga naan lii dafa jafe maa la ñee waa léegi ñee nga ko bunt bi tëjoo guddi yaa ngi dund defal ne moom defal ne moom boo jéemee rek yàlla xam na ne daal di tàmbulee man waaye est que pare nga pour jéem est que pare nga pour jéem foofu la foofu la mbir mi nekk est-ce pare nga pour jéem ki koy jàng dañoo sopp ci moom isaa marra bi ayati rahma talaba min allahi rahma bu demee ba romb aaya joo xam ne day wax ci yërmande yàlla mu ñaan borom bi subhaanahu wa taala yërmande bu rombee aaya joo xam ne day wax ci mbugal mu ñaan borom bi subhaanahu wa mu musal ko ci mbugal mi yooyu moom da koy xam di ko jéem a xereñe kemtalaayal kàttanam ci teggini njàng mi la bokk boo demee ci biir it am na aayaat yoo xam ne boo ko jàngee am na yuñ bëgg nga wax ko ci misaal boo waxee wa waman asdaqu min allahi xiilaa wala waman asdaqu min allahi xadiisa mooy kan moo gën a dëggu yàlla ay wax kan moo gën a dëggu yàlla ay wax danga koy romb danga koy romb boo ko waxee nga ne laa axat kenn kenn gënu koo dëddu dëggu ay wax loolu fi ne boo doon déglu nit kuy jàng alxuraan ba wax ko fi nga toog dangaa war yëg ne yàlla moom moo gën dëggu ñëpp ay wax parce que borom bi day wax wax yu bari waaw di nettali di nettali ba mu yàgg mu ne kan moom a gën a wér ay wax amut li mu wax rek moo wér nga ne ko kenn gënu laa wér ay wax comme boo waxee faman yatiikum bi maa im mayin nga wax allahu rabbal alamin waaw suñu boroom subhaanahu wa taala moom moomu la boo waxee alaysa dalika bi xaadirin ala an yuxiya al mawta nga balaa ndax yàlla mënta dekkal ñi nga xam ne dañoo faatu ndax yàlla mënu leen a dekkal nga ne akay ah, wa ana ala zalika min ashahidin alaysa zalika alaysa allahu bi ahkamil xaakimin nga wax balaa kan moo dàq yàlla ndax yàlla dàquta atte attekat yi nga ne ah kay yàlla kay moo dàq atte attekat yépp yooyu yëpp alquran bi day tal ne boo koy jàng léegi da ngay dugg ci biir da ngay dugg ci biir allahu akbar ki ko manta di ko xereñe du wéet du wéet moo tax nituk alquran wërta wéet te nituk alquran maa ngi ci jublu rek kuy jàng alquran moo tax ñu naan diw daa ñeme diw daa ñeme tëju diw daa ñeme nangam waaye mi ngi waxtaan waxtaanu wu dàq waxtaanu garam place bi ak waxtaan wu dàq waxtaanu ëtt bi te mooy waxtaanu alquranul karim nga xam ne bu rombee aaya joo xam ne day wax day indi tasbiix yi mu sàbbaal borom subhaanahu wa taala bu rombee aaya joo xam ne day indi sant yàlla mu sant boromam subhaanahu wa taala bu rombee aaya joo xam ne day indi ak jéggulu yàlla mu jéggulu borom bi subhaanahu wa taala wa bi dalika yakun xat ange ma alquran waaw loolu day yóbbu nit ki mu dem ba day dund ak alquranul karim waaw day dund ak alquran dundam lay doon allahu akbar nekk dundam nga xam ne day dund alquranul karim bu koy déglu day na ci biir bu alquran di nekk li borom alal te fekk moom mu yor mu am wërsëg mu jàppee boppam maay borom alal ji di ko déglu fi alquran di wax fi alxuraan di jaar mu nekk moom mu nekk moom ba ca mujj ga mu xool ma xam kii laa bëgg a doon wala kee laa bëgg a doon ki ko dépensé ci lu baax ba mujj fu baax kooku laa bëgg a doon wala ki ko dépensé ci safaan bi ba mujj ci safaan bi kooku laa bëgg a doon mhm. bu alxuraan di nett li boroom xam-xam mu jël boppam def ko boroom xam-xam bi di xool ba xam man kan laa bëgg a doon boroom xam-xam bii nga xamante ne fii la mujj muy fu baax fi yàlla di ko tagg moom laa bëgg a doon wala ki mujj ca safaan ba ñu koy yedd moom laa bëgg doon programme bi leer ci boppam mu xool kan la bëgg a doon ci ñooñu bu suñ borom di nett li boroom kër bu jàmbaare ci biir këram di yar bëgg njabootam déggal leen toppatoo leen ragal yàlla ci ñoom mu jël boppam def ko muy boroom kër parce que bu ko defee ak bu ko defut yëpp boroom kër la waaw bu ko defee ak bu ko yëpp boroom kër la mu tàmbulee xool man kan laa kan laa ci ñu yàlla di wax nii man daal na laa wala muusa laa ñaar yooyu léeg-léeg koy xool bu jàpp ne firawna ak muusa ay léeb la woon yoo xam ne jàll na fi ba léegi àdduna bi daa am ay muusa yu bari ak i xaaruna am ay firawna yu bari ak i xaaruna waaw yooyu dafa am maanaam maanaam programme la loolu daanaka ab système la boo xamante ne boo ci adhéré rek ci ñooña nga bokk yaa gën a xam sa bopp léegi xoolal xoolal nit ki mooy xool mooy xool ba xam ci yooyu laa bokk loolu moo koy yóbbu ci mu dem ba day dund alxuraanul karim maanaam day dund ak moom day dund ak moom moo tax buñ ko koy jàngal waruñ ko firil firi mu sori waruñ koo firi firi mu sori moo xam ne da koy yóotu ji da koy yóotu ji ba jàpp ne lu jàll la lu paase la demeetul noonu dañ ko koo war a jegeel ba mu doon moom parce que téere bi yaa ko moom téere bi yaa ko moom de téere bi ñun ñoo ko moom ñun ñi di dund ñun ñoo ko moom téere bi nekkut ne yàlla da ko wàcce woon ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ak saxaaba yi ñoom ñoo moomoon alquran dund nañ liñ ciy dund jeex na ñun ñu ñu koy nettali mu doon yoo xam ne day nekk ca fa ñuy def archive ya wala lañ fiy nettali lépp lu jàll la déedéet histoire buñ la ci nettali jàppal ne histoire boobu bu ko bu ni mel mi ngi am ci àdduna mi ngi dunde noonu te alquran dafa ñëw ngir régler boobu daf la koy misaalal nag ci aw nit ngir mu mën a fekk si la te misaal ma nekk dëgg ca démb waaye téere bi yaa moom ki koy jàngee noonu nag day mujj yàgg mu doon koo xam ne day dëkk ak alquranul karim day dëkka moom alquran nekk dëkka nekk dëkkaaleeg moom waaw jaawatu bil furqaani rabbiyal muin loolu suñ tubaa waxoon maanaam dëkkaale naag sama borom waaye ci alquran xam nga ki naan dëkkaale naa yàlla ba maa ngi toog di wax moom nga ne ko fu yàlla nekk mu ne ci alquran laa dëkkaaleeg moom maanaam alquran laa def sama wéttal moom laay jàng moom lay settantal moom lay dund moo tax daa mujj yàgg mu mel ne maag yàlla ñoo bokk kër bu doon am na kër daa mujj mu mel ne maag moom a bokk toogandoo su fekkoon ne loolu mën naa nekk damaa mujj doon koo xam ne damay dund di dund ak alquranul karim loolu moo tax sayyidatuna Aïcha radiallahu anha biñ ko laajee jikko yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ne ay jikkoom mooy alquran waaw ay jikkoom mooy alquran loolu li muy tekki mooy foo dégg ñu ne alquran dafa mere te kam mere lam def daa jaaduwut jàppal ne loola naqari na yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba da cay mer yow it na la naqaree noonu loo dégg ñu ne alxuraan di ko bëgg ba di ca xiirtal nit ngir ñu daw jëm ca jàppal ne loolu mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam bëggoon ba daan daw di ca jëm suba ngoon guddeeg bëccëg kon yow it sampal xel jëm ca allahu akbar loolu mooy alquranul karim téere boobu téere bi nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa taala wàccee ak ñun muy buum gi nga xam ne moo dox suñ digganteek moom allahu akbar ku ca mooy dem ku ca mooy dem tamassaktu bil xablil matinil murattila wa bil urwatil wusqa lati hiya nuuru alquran nuurun mubinun ata nuural mubina li irsaadi li ibaadi jamian rabbi allahu alquran noonu la noonu la noonu la noonu la alquran toll noonu dañ koy bëgg dañ koy dund dañ koy settantal aaya yi ci sa xol di ko dund di ko settantal ci sam xel waaye di ko yëg ci saw yaram bu ko defee muy laabal sa bu sa ruu di yëkkati jaam bi nag jox ko wàccuwaay yu rëy rëy ci kanam boromam maxa safar al kiram al barara loolu mooy ñaareelu tomb bi te mooy tomb ki koy jàng na góor góorlu ba xam li yàlla di wax bu rombee aaye yuy wax yërmande mu ñaan yërmande ja bu rombee aaye yuy wax eh, lu metti mu ñaan borom bi musal ko ci yi nga xam ne ay laaj la mu di ko tontu fu yàlla ne ndax dàkku maa def na mu ne ko ah kay kenn dàqulu ko jalla jalaaluhu ba e, njàng ma di jeex loolu day tax mu doon koo xam ne day dund ak alquranul karim yàlla yàlla may ñu di ko dund bu ñu suulee ba woon ñu ginnaaw sotti ñu suuf ba jal ñu yeew ñu sotti ñuy parfum wàññeeku ñibbi ñu wéet fa lool yal na alquran doon suñu wéetal allahu akbar tey guddi googu lëndëmaayu lëndëm rek lëndëmaayu biir suuf ko gën a lëndëm ñu suul nit ba ne man